jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu mooy soo ko jot ci njolloor bi li gën a fës xibaar bokk na ci session unique bu assemblée suba kii di Absa Elimane Wane jot naa génn yoo xam ne Abdou nii fal nañ ko nag mu nekk vice président lañ ci ànd ak kii euh, nekk nag ca Ziguinchor conseil présumé ñoom bëgg nañu amal ku ndigal xibaar yi dañuy fas yéene bokk na ci mbirum terme sud général Euh, Mamadou Mansour Seck nag mu ngi indi joyantuwaat débat bi indi ci ay leeral ci dossier bi amal na conférence parce que dañ ci ànd ak kii di euh, Adji Fatou Bari lañu fas ci wàllu xibaar bi gàmm nag ren am fële ci Tiwaawoon euh, nañ ko doon na nag impact ko ci wàllu koom lañu ànd ak di Babacar Sow te Tiwaawoon ànd ci ak tamit Babacar Ndaw fële nga xam moo nekk ci diwaanu Thiès lu ñu fàtte tamit wàllu njàngale mi suñu gan kër gi yoro ja lay doon nekk xam-xamaat la jëm ci wàllu politique si wax moom jëm ci waxtaan ci wàllu Mali xibaaru bitim rek xibaaru sport eh, xibaaru tàggat yaram Assane Tour moo nekk ci wàllu xarala gi. El Hadj Malick Ndiaye. dañuy dem ci assemblée nationale fekk fa Habsa Elimane Wane Habsa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay eh, El Hadj Malick waaw ndax yëf yi commencé na lan lañ ci mën a jàpp comme fi mu toll nii. waa kay xam nga sànq El Hadj Malick may wax ak Babacar ci bi mbiri tàmbali woon ndax ñu eh, tàmbaliwu tàmbali ñu ngi doon convoqué député yi 10 heures. ba midi euh, noonu ni ma defee direct ba pare sax ci la door léegi nag président assemblée nationale ni ma bëgg see loolu sax la njëkk a leeral ci bopp yi ni retardu ñaari waxtu yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci euh, mbir yi euh, nee na lu war la parce que groupe parlementaire yi xam ma tey ji lañ war a yeesalaat bureau bi donc groupe parlementaire yi dañu war a gisee seen biir ba xool kan ndax dañuy reconduire même bureau bi wala dafa amee coppite ñu ciy def te mu ne tant que boobu la nga xam ne day tukkee ci groupe parlementaire yi yembul vote bi du mën a door Euh, moom sax euh, kii di président assemblée nationale mi ngi doon wax secrétaire bi sànq ne lenn sax la ñu war a def mooy désormais bu ñu convoqué ci euh, assemblée nationale parlementaire yi douze heures dix heures mais nañuy xaar bu midi di jot ñu soog leen convoqué ngir yooyu liggéey yi nga xam ne moom la ñu war a def balaa vote bi di door mën a yemb bu baax a baax ni mu dooree mbir yi si la vote bi sax door fi mu toll nii ñu ngi ci ni ñu njëkk a war a jël nag mooy ñi nga xam ne mooy vice président yi Euh, loolu sax euh, Alaaji Malick fa tax ma fàttali ne kii nga xam ne mooy Armuri Gningue moom lañ ñu dabalaat euh, mu nekk président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Cheikh Mbacke moom nag moom it lañ dabbaliwaat mu nekk président groupe parlementaire Euh, bu euh, liberté et démocratie instant yi ñu ngi voté mais liñ ci mën a jàpp Alaaji Malick Ndiaye xam nga bureau sortant bi sànq maa ngi ko doon wax Babacar Samb ci midi bi euh, premier vice président bi Cissé la woon waaye fi mu toll nii ki nga xam ne mooy Armée ñi ngi dafa proposé assemblée bi ñu wuutu ko ki nga xam ne mooy Abdou Mbow mu ñëw nekk premier vice président assemblée nationale ki ci nar a topp mooy Yetta Sow Cheikh Tidiane Gadio ñetteelu place ba ay Aïssatou Sow Diawara Abdoulaye Matar Diop Ndeye Lucie Cissé Alilo ak Yaay Mané Albis nga xam ne loolu ngi tukkee ci groupe parlementaire liberté et démocratie donc ni ma la ko waxee léegi ñu ngi ci ci voté suñu paree def dépouillement bi lenn li si daal mooy euh, dellu si Abdou Mbow euh, ci euh, wàllu vice président assemblée nationale ndax xam nga ne ci bële biñ doon def daaw ci lañ ko génne woon wuute ko ki nga xam ne mooy Moustapha Cissé Lo leneen liñ mën a jàpp Serigne Alaaji Malick xam nga ne ñu ngi ci jamono joo xam ne Covid 19 bi mi ngi ci réew mi mun nañ ne salle bi daal disposition yi changé wuñu ko député yi doon toog yaa ngi wante nag euh, li si yées kay mooy ku nekk daal takk na sa masque bien que nag li ñuy wax dendante bi moom respecté wuñ ba mu sociale mais daal ku nekk takk nga sa masque ñenn ñi sax ñu yore seen gel ñàkk ñu sa def ña ko def seen saak mais am na ñoo xam ne euh, seen gel daal ñu ngi ko teg seen kanam di ci laal saa su ne euh, xanaa fàttali ne euh, euh, président assemblée nationale mi ngi ne 133 députés ñoo teew ci assemblée te nee nañu daal bu 83 teewee rek war nañ mun a door donc téeméer ak fanweer ak ñett ñoo teew jamono ji mi ngi fàttali ne waat fukk ak député ak juróom yi nga xam ne ñoo bokk ci mission d'information bi nga xam ne moom lañ taxawal jëmale ci wàllu mbënd mi ñooñu ñu te nangul lañ leen ko ndax ñu ngi fépp ci diwaan yi nga xam ne kon la mbënd ngir daal motal liggéey bi nga xam ne moom la leen assemblée nationale bi dénk jëm ci wàllu euh, mbënd mi loolu daal lañu mën a jàpp euh, Alaaji Malick fi mu toll nii ñu ngi voté wàllu vice président yi buñ ca jógee jàll ci secrétaire euh, élu yi loolu daal lañu mën a jàpp Alaaji Malick Ndiaye fii ci assemblée nationale. jërëjëf xam say limaano ñu wax lu bees ci mbirum Boffa Bayotte ñi nga xam ne kat ñooy layal René Bassène ñoom bi def nañu demande liberté provisoire nag euh, ngir clients yi ak tam fukki nit ak ñaar maître yi nag bëgg na euh, songu décision bi juge bi juge bi jël bi nga xam ne nag euh, lu jëm ci élément en charge ñu toppee ne capitaine Bassène ñu wax ci mbirum terme sud ak tamit tey jii général Mamadou Mansour Seck indiwaat ay leeral ci débat bi nee na kat moom tam dem retraite nee na li nga xam ne rek moom mooy wàllum terme sud nag moom war woon sax agsi fii nii war woon sax agsi fii nii moom général Mamadou Mansour def na tey ji nag conférence de presse dañ ci ànd ak ki nga xam moo nekk Adji Fatou Bari bi nga xam ne moo toppat tey ji nag conférence de presse bi nga xam ne généralement su fekk amaloon na ko. général Mansour Seck jàpp na ne dafa am ñoo xamte ne dañoo romb seeni at maanaam jël retraite waroon delloo lii di dëkkuwaay leen joxoon ñu bañ mu jàpp ne nag lii dafa warul te sax benn dëkk duñ ko fa nangu mu jàpp ne itam armée bi liñ ci soxla te ñu leen koy jàngal buñ fa yegsee moo di lii di teggin général Mansour Seck fàttali ne ci atum 1985 la ñu daal di woon sos lii di Comico jëmoon ci benn coopérative ngir amal ay dëkkuwaay ngir militaire yi loolu nag liñ ci bëggoon rek moo di yombalal leen lii di dëkkuwaay bi ba nga xamante ne njabootu militaire yi duñu am benn jafe-jafe ñi jiite woon liggéey bi di waa service du génie ñoom ñi nga xamante ne ñooy toppatoo lépp luy tabax jëm ci wàllu armée bi muy leeral ni ay junni junni militaire daal woon nañ jot ci yooyu le tabax te sax bés bañ koy inauguré ki nga xamante ne moo fi nekkoon ministre de l'urbanisme di Dansokho moom ci boppam dañ ko invité woon ngir mu fekkee si boobu mbir ki fi nekkoon Semga dem bay wax ne moom mënul sax comprendre lan moo waral mbir mi dem ba ci wàllu yoon fa demee waa armée ak comico ñoom ñoo fa daal di gagné ki nga xam ne nekkoon na fi général te tey jii mu dem retraite ne fii mu nekk nii coowal Carme Sud bi nañu fexe ba wàllu politique bi du ko daal di yóbbu ndaxte sax lim ciy bañ rekk moo di ci wàllu armée bi ñu jaxase ñii di commandement bi ak ñii di seeni troupe ngir jeexal général Mansour Seck di fàttali ne dañuy wax ne juróom-ñaar fukk ci ay njaboot la waaye dëgg-dëgg bi moo di ne juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti njaboot dong lañu ñu fa daal di génnee ndaxte fukki yi dañoo gis ne ñoom ba léegi ñu ngi daal di actif maanaam demaguñu retraite moo tax ñu bàyyiwaat leen seen kër leneen lu mu xamle moo di ñaar fukk ak juróom benn wala sax ñaar fukk ak ñett ci ay militaire yu dëkkoon foofu ca terme sud gis nañ ne am nañu ay kër waral ba sax mu jàpp ne ñooñu dañoo waroon sax daal di delloo koppar ci logement bi ñu leen joxoon te nga xamte ne fayuñ ci dara ndaxte loolu mooy liy dëgg loolu moom it dañuy defaat yéen ci li xew ci mbirum Boffa Bayotte ak ñiy layal René Bassène nag euh, def ab demande liberté provisoire moom ak fukki nit ak ñaar maître Clédor Ciré nag bëgg na song décision bi nga xam jël na ko ñu déglu ko ci loolu maître Clédor Ciré li mu initial leeral ci micro Ignace Ndeye. enquête mosul am am na ñu ñu rey ci àll bu ñu naan Boffa Bayotte léegi il fale que ñu am résultat yónnee nañu gendarmerie ñëw ñu jàpp nañu ñoo xam ne xamuñu sax lu xew ne leen ràpp ci kaso bi. bañ leen tëjee ci kaso bi ba tey it enquête bi jeexul bàyyiwuñ leen ñu sàkk woon ñu bàyyi leen ñu ñibbi buñ leen soxlaa ñu woo leen ndax loolu la yoon wax ne que balaa ñuy jàpp nit loolu dafa war a doon li nga xam ne bu warul mën a ñàkk lañ war a jàpp wante nit ki bu reyee nit sax te jàpp ko war na mën a ñàkk mun nañ ko bàyyi fuñ ko soxlaa ñu woo ko ñaareel bi moom moo di it dañoo gis ne que enquête amul ndax gendarmerie li mu def doyuñu tey na xel ñi nga xam ne que war nañu mën a indi ay firnde yi wane que ne ñoom nekkuñu woon ci àll bi wala nekkuñu ñu woon Ziguinchor dégg nga wala peut-être sax xëy na nekkuñu woon Sénégal loolu lépp juge bi jéemul xool ndax loolu mën na nekk wala mënul nekk dégg nga li ñu wax ne que it loolu euh, moom moo di seeni preuve dégg nga ay téléphone ak yooyu loolu lépp dafa des parce que mënuñu nekk nit ki téléphone am Euh, wane na ne que mu ngi Ziguinchor Ziguinchor dafa yaatu tey jii bu fekkee ne que ba fa Bayot amul antenne télévision et que antenne bi am ci Ziguinchor ci ci Casamance ci zone bi yëpp Ziguinchor la nekk bu leen neexee ñu nekk que nañ ko ba fa Bayot fekk du dëgg fekk ci biir Ziguinchor la nekk kon yooyu yëpp ay élément la yoo xam ne mbir yoo xam ne que suñ ko saytoo ci xam-xam jéem ko jaarale yoon war nañ mun a xam ku ci ne fan nga nekkoon ak ku ci ne waxtu boobu lan nga war a def loolu nag ba ñu ne juge bi nañ ko saytu dégg nga ñu leeral ndax ñii war nañu mën a bokk ci lañ leen jiiñ walla loolu juge bi dafa ne moo lànk ba ñu nekk nañu déglu général bi parce que dañu am lu ñu koy laaj te war nañu war a mën a leeral dara moom moo di nga xam ne tey jii moom moo jiite armée Sénégal dafa ne moo lànk loolu du ko def ba ñu nekkoon ne entendre directeur rajo Sénégal bu nekk Ziguinchor parce que moom it am na yoo xam ne war na ko ci mën a leeral dafa ne moo ñàkk kon juge d'instruction bi lan lay jëriñ lépp luñ ko ne ne saytu luy war a wane que ne ñii mu jàpp waru leen jàpp dégg nga et yoon nekku ci buñ ko waxee mu lànk kon boog loolu li mu lànk loonu ak li mu leen bàyyi bañ a bàyyi looloo tax tey ji ñu ñëw ci kili ki nga xam ne moom moo ko te kaw muy chambre d'accusation pour que ñoom ñu saytu loolu tontu ñu ci tontu yu leer léegi nag chambre d'accusation bi ba ñu ne du ñu boole wax jëpp ñu wax ko benn wax nee naa kon bokk bu ñu waxul tey ci liberté provisoire bi fokk ñu bàyyi leen par force kon loolu nag mën na ñàkk que ñu mën ñu tontu ndax dañ leen di bàyyi wala duñ leen bàyyi ak luñ ci mënti lay it day nga ñoom seen droit la kooku nañu wax wax jooju ndax délai la mais li jëm ci expertise yi ak seede yi nga xam ne dañoo bëgg ñu ñëw ñu entendre leen wala ñu bàyyi leen ñu jongante pour wane que ne li enquête bi def maanaam du dëgg ay naxe mbaay la et que waruñu dara dégg nga alors dañoo tuumaal ay nit te tuuma yooyu ñun mun nañ ko dindi dégg nga loolu ñu dàqal ko ay fan ndax dinañ war a gën a mën a am lii tax que loolu dina fësal dégg nga euh, njublang bi nekk ci enquête gendarmerie bi. ñu wax ci gàmmu ren gi nga xam ne nag euh, du am nañ ko daan amee at yi ñu génn décision boobu na xam ne général des Tidiane moom moo ko jël euh, démb ginaa ba mu ci concerté ak njabootu Seydi Hadji Malick gi yëpp ñu jàpp ne loolu nag am loo xam ne indi njeexital ci rawatina ci wàllu di mbég dikki wàllu séerage béeg yooyu dañ bi nga xamee nii ki nekk ci jax bi njabootu Seydi Hadj Malick Sy Serigne Babacar Sy jël na ko nii bu kenn ñëw Tiwaawan ngir def si li nga xamee ni moo di gàmmu gi nekk ku nekk fa nga nekk na ko fa defee nag ndax corona bi dina am ay jafe ci wàllu koom suñu sukkandikoo ci kilifa yi nga ndogal yi euh, ci wàllum mairie bi ñoom ñoo ñi nga xam ni nee nañu guddig diina la nga xamee ni gii xaalis bu bëri daana dugg ci gafa ak euh, waxul ñu maire bi sax waaye ñëpp ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu koom-koom occupation domaine public ñi nga xamee ñoo doon nekk ci mbedd yi di jaay di daaj ay taabal dafa am koppar yoo xam ni dañu ko daan jox ñi nga xamee ni ñoo di wàllu mairie bi te ñooñu ci réewum Sénégal fépp lañ daan jógee waaye tam wàllu affiche publicitaire ci produit yi nga xamee ni yëpp dañ leen daan commercialiser ci biir gàmmu gi nekk na li nga xam ni itam dina am ay euh, jafe-jafe ci koom-koom ci dara bu bees bi nga xamee ni mairie bi moo ko tabax foofu suñu sukkandikoo ci kuréel gi ëmb lenn ci ñi nga xamee ni ñoo di sàmm yi ñoom nag nee ñu daal bu gàmm mosoon na weesu seen mbir daf daan baax ndax koppar yu bëree bëree bëri lañ daan am waaye nag ñoom dafa mel ni sax amoon nañu xeltu ci ci euh, ñaari xel ni daal gàmmu gi dina am wala du am ndaxte lenn loo xam ne lii euh, gisoon nañ ko moo di jamono ji di daan fekk nit ñi euh, ñu ci bëri daal di commencé daaj taabal yi ñu gis ni dëkk bi commencé na xumb waaye ba xalif bi waxee li ni mel loolu bettu ñu leen mettu leen benn yoon suñ sukkandiku ci ñu yore wàllu dem beeg dikk bi itam ca gaaraasu Tiwaawoon nee nañu daal li ni mel itam dafay daal di dal seen kaw jafe-jafe koom-koom suñ ci sukkandikoo ci ñu yore lenge yi nee nañu daal euh, buñ ko musaan seetlu fépp waaye di jogee di ñëw Tiwaawoon dañ daan euh, ful njëkk dem beeg dëkk bi pour ñëw ci dëkk bu sell bi suñ sukkandikoo kenn ci ñoom koo xam ne kii bëggul joxe turam nee ñu daal yaakaar nañ ñi daal gàmmu Moustarchidine ca champ de course dana fexe ba lenn ci jafe-jafe al euh, leen alatu ko ci wàllu koom daal de wàññeeku ci maire bi ñoom ñu ngi wëyal seen liggéey yi leeral dëkk bi dindi suuf si nekk ci lenn ci yoon yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi waaye itam wàllum keewu gi dend gi ci assainissement ñu ngi koy toppatoo Babacar Sow dañ ci jokk fii ci Tivaouane pour Sud FM ci Babacar Sow ca nag ñoom ànd nañ ci eh, li nga xam ne rek mooy décision bi xalif bi jël dañ ci ànd di Babacar Ndaw gàmmu atum 2020 bu Tiwaawoon dul amal loolu nag digguleet fii si Thiès rawatina marché central ñu si bëri jàpp na ne nag sujet la boo xam ne dafa sensible ba nanguwun si àddu waaye terewul kii di Assane di tailleur moom si boppam nee na dogalu xalif bi bertu ko. man maa ngi tudd Assane Lo. waaw tailleur marché central waaw. boobu tey daanaka 6 mois ñu tëj jumaa yi tëj jumaa foofu julli te julli boo gisee julli moo gën a nekk farata gàmm comme que tey ñun jumaa mënuma tëb rek ubbi dañuy euh, kii moom beneen commerçant la di talibé cheikh moom jàpp na ne li xalif général lu tijaan yi euh, jël loolu si diine la ko teg yàlla dogal ren mu am lu mu àndal euh, kon ni ko Serigne Babacar Sy Abdou Aziz waxee avant muy joxe message bi mu ni comme tëjoon nañu jàkka yi depuis mois de mars tëj nañ jumaa yi depuis mois de mars julli nu iitu tabaski julli wunu korité comme tey bu nekkee yooyu euh, ku mel ni julli ajjuma ak julli farata ci ci jàkka yi farata la defuñu ko te gàmm di sunna ah dafa mel ni nag ku bàyyi farata la ko bàyyiloo loolu moo koy bàyyiloo sunna bi ah di ko rafetlu bu baax en tant que taalibe bi di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla bàyyi ba déwén ak jàmm ak salaam kon ñu mu ko ñaanee ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko. ñaari ay bés rek gàmm gi war a jot jàpp nañ ne fii si diwaanu cees nag am na yeneen këru diine yoo xam ne ah, ñu ngi lëkkaloo kilifa yi ngir jël seen matuwaay fas yéene màggal ah, guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bokk na si njabootu Njëgeeneen Thiénaba ak Ndiassane Babacar Ndaw Thiès su def. ba tey ci wàllu xibaar gi naan fukki simili ak juróom benn waxtu fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñeenti million nag ndongo ñu ngi leen di xaar ci école yi SAEMS nag mu ngi arrêté bëgg nañu jël ay mobilisation générale su ko defee ñu ubbi boo xam ne am benn jafe-jafe rot na ci wàllu paj gi Sëwru Sène mooy secrétaire général bu SAEM suñu déglu ko ci micro Adja Sagna li ñu ci tiital rek mooy d'accord bi ñuy reprendre cours yi le vingt cinq janvier euh, le vingt cinq juin na nit ñi fàttaliku ni loolu mu ngi concerné woon cinq cent cinquante et mille élèves maanaam élèves yi nga xam ne ñoo nekkoon classe d'examen mais rentrée scolaire bi bu ñu ko waxee élèves yi yëpp la environ quatre millions d'élèves li werte woon mooy pour que ñu respecter les mesures de sécurité sanitaire effort yi nga xam ne defoon nañ ko pour encadrer les candidats effort boobu il faut ñu yokk ko bu baax a baax a baax parce que li encadré cinq cent cinquante et mille élèves encadré wul quatre millions d' élèves donc dafay am solo nguur gi rappelé wu loolu collectivité locale yi nga xam ne éducation dafa nekk compétence transférée ñu jàpp ci toute la nation sénégalaise comme niñ ko defoon ak candidat yi ñu solidaire autour de lécole parce que kenn mënul nangu mais jàngoro bi dugg ci biir l' yi encore que même sentir nañ quand mu ngi baissé mais quand mu ngi fi ba léegi bi il faut que ñu jël matuwaay yëpp pour que vraiment ñu sécuriser école yi. ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi nee na moom xam na li koy xaar waaj na lépp jëm ci rentrée scolaire bi ak wàllu mbas mi. am na sax protocole bu bees boo xam ne ko établir ngir élèves ak tamit ñuy rawante jàngalekat yi kàddu yu kortal moo nekk Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication nekk porte-parole ministère bi ci micro Adja Issa Niang. yàlla dimbali ñu ba malgré crise sanitaire bi ak hivernage bi réussir nañu reprise des cours réussir li ñuy wax maintenant téeméeri junne ak eh, euh, téeméeri junne élèves ñoo nekkoon ci examen yi cette fois ci nag daanaka ñeent millions ci ay élèves daañu euh, dellusiwaat ci classe yi le le douze novembre euh, ministère des mi ngi liggéey ci li ñuy wax note d'orientation boo xam ni dañuy note d'orientation maanaam loo xamante ni bi kayit boo xam day wane ni ouverture bi donc ci conditions yi lañ koy tëral waaye it protocole sanitaire ak ministère de la santé ndax xam ngeen ne feebar ba léegi mi ngi ci te quatre millions d'élèves dañuy recevoir waaye nag Euh, comme euh, ku ne xam na ne léegi cas yi mi ngi mi ngi baissé ñu ngi sant yàlla waaye aussi euh, que xale yi ñu ngi ci ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ñu ngi football ñu ngi ñu ci mbedd mi te amu foofu amul ben protocole ah kon jàpp nañu ni war nañoo mën a indiwaat suñu élèves yëpp avec un minimum vraiment de disposition pour que ñu mën a jàngatee duñu feebar loolu nag ñu ngi ci liggéey ak ñu ci liggéey ak gouverneur yeeg préfet yeeg E IAIF e yi waaye aussi euh, syndicat CR7 ak euh, organisation de la société civile jàppeen daal incha allah euh, war daañu delluwaat ci classe yi le le douze novembre te précaution yëpp dañ ko jël ngir que xale yi jàngi te duñu am benn problème incha allah. ñu wax ci wàllu mbas mi fu ñu toll tey jii nag ñaar fukki ak ñeent ñoom ñu am wopp si di coronavirus am juróomi cas grave leeral ak El Hadj Maodo directeur de la prévention mu ngi leeral. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci benn cas contact mooy benn kaa bi nga xam ne moom jot nañ ci mbas mi fekk dafa jaxasoo woon ak ki yore doomu jàngoro yi am nañ ci juróom benn kaa yu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne jas am nañ ci fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu fi ko jëlee walla ki leen ñooñu nag seen lim nii la tëdde almadi am na ci ñaar mbaaw am ci ñaar cité kër góor gi am benn cité sonatel am benn dakar plateau benn fann benn géejawaay benn liberté 4 benn mariste benn mermoz benn nord benn pikin benn sacré benn thiès benn ak yoof am na ci benn juróom benn fukk ak ñett si malade ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee am nañ ci juróomi kaa ñi nga xam ne ñu nga réanimation benn malaat ñàkk na bakkanam bu su démb talaata fukki fan ak ñett ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak ñett téeméer ak fanweer ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen wax aar leen seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi mu nekkoon El Hadj Mamadou Dia directeur de la prévention ñu wax ci joxante leen ngeen am te ca salle procès d'art Senghor mu nekk stade bu mucc ayib bu na wax na ne kat na dooraat liggéey bi travaux de réhabilitation yi fan la ñu dëgmal si Youssouf Sy ci micro Odile Minkilan. défi mag yi nag mooy d'abord mooy stade bi dañ koy defaraat dañ koy tëj defaraat ko dañ koy reprendre carrément les Chinois venir dañuy ñëw reprendre totalement stade lépp gradin yeeg pelouse beeg. vestiaire yeeg duñu bàyyi dara parking beeg lépp dañ koy aménagé ba mu nekk stade bu mujj ayib ba pare état du Sénégal su boppam jël ay moyens investir parking extérieur boobu ñu déggee ci nit ñi foofu dañ koy dugal boole ci stade defaat fa ay terrain annexe defaat fa centre d'accueil bu mag mel ni comme hôtel defaat fa deneen salle sport defaat lépp parc de loisirs prévoir nañ ko foofu. boobaa dañuy am stade boo xamante bu leen wax dañuy am stade boo xamante ne c'est l'un des meilleurs stades d'Afrique même tu vois boobaa mooy que ñu veiller pour stade bi bañ a yàqu bañ a dégradé. en offrant idée bi euh, mu offrir nit ñi suñu fréquenté accueil bu baax ak hygiène bu baax ak sécurité bu baax donc loolu la loolu daal. léegi liggéey bi mën nañoo wax kañ lay tàmbali. liggéey bi mën naa wax ni fii léeg euh, fin d'année bi daal dina tàmbali incha allah fii ci lu mu gën a gën a gën a gën a yéex janvier 2021 xam naa wala si biir premier trimestre janvier 2021 daal dina tàmbali incha allah. ganu bés bi. ñu ngi ak Yoro Dia yow nag sa xam-xam ma màcc jëm ci wàllu njàngat politique gis nañu lu toll ci ñaar fukki yoon ñu ñàkk seen bakkan ca Mali ndax mën nañ lié loolu ak bàyyi gi su bàyyi si Cissé ak jihadistes yi ñu bàyyi foofu ca Mali. non peut-être même bu ñu bàyyi woon Soumaïla parce que attaques yi mosul arrêté depuis 2012. Euh, ni ñu mën expliquer attaques yi ça veut dire que peut-être yi dañuy wax ne gouvernement Mali bu bees bi euh, que EBK euh, e dem na mais problème bi ba léegi réglé wul le problème ba léegi réglé wu le problème est réel donc comme ni wax en français dañuy wàññi ni gouvernement malien et évidemment y a des am na ay changement ba ma ko mais ñun fi ñu nekkoon ñi ngi fa nekk ba léegi et pour man gouvernement malien war na conscience ci loolu tey jii boo nekkee président Mali euh, quatre vingt dix pour cent de son cerveau lépp ci sa xel ak ci sa xalaat mooy mooy nooy def ba gérer affaire sécurité parce que mooy c'est la plus grande sécurité amul économie du am diplomatie du am dara du am boo gisee liñ daaneel IBK maliens yi àndi parce que ñoom dañoo gis ni bi IBK nekkee président ak lim juróom at yi ko def yëpp chaque jour euh, Mali seen suuf seen territoire jihadiste di gën a avancé donc ñu xalaat di kat bu mu bàyyi IBK ba mu jeexal mandam ba mu jeexal mu deuxième mandam boo def nank Mali du amaat du amaat donc maliens yi moo euh, ñu def coup d'état boo gisee maliens yi jàppale leen pour ñoom dañoo yaakaar ni il fallait ñu arrêté IBK pour affaire sécurité Euh, Mali am il faut pas mu def erreur bi IBK defoon 2012 ñu fal la dëkk boo xam ni euh, de tuute de sol mu naax saay du France intervenir wul ñu fal la rek ngay jënd ay avions yu bees comme da nga nekk naa un pays normal yaakaar naa gouvernement malien du def erreur boobu jihadis aussi dañuy wane dañuy wane seen bopp euh, que ñoom am nañ possibilité même bu dee Mali France ñëpp dañu wax ay criminel lañ am nañ possibilité am nañ moyen pour wan Mali ak France que ñun même bu dee nga yaakaar ay criminel lañ am nañ doole pour que ngeen wax ak ñun te boo xoolee pour affaire otage yi pour libération otage yi donc ay ay waxtaan ay négociation am na forcément diggante ci jihadistes yi ak ak maliens yi ak ak français yi. ndax fi mu toll nii ak lii xew mu nañ am tiit ak njaaxle jëmale ko ci Afrique su sawu jant maanaam sous région bi. waaw mais njaaxle ak Afrique sawu jant du lii xew rek saw depuis 2012 depuis 2012 bi jihadistes yi nekkee normal yi la Afrique sawu jant waroon tiit te buñ tiitoon depuis 2012 song affaire yi mën nañ ko daal. parce que boo xoolee jihadis yi aussi jihadis yi aussi faut pas que nit ñi defee ni ay ay dof lañ wala ay bàyyima lañ wala ay intégriste lañ boo xoolee jihadis yi jihadis yi ñoom waxuñ Mali ah jihadis yi du ñu wax Mali du ñu wax Sénégal du ñu wax Côte d'Ivoire du ñu wax Mauritanie ñoom Afrique de l'Ouest la wax Afrique saoudienne ça veut dire avant colonisation ñoom loolu la ñuy wax boo xoolee aussi au nord Maghreb du ñu wax Libye du ñu wax Algérie Maghreb la ñuy wax ça veut dire que pour ñoom affaire frontière ñoom dépassé ko ñun kay en tant que état souverain ak intellectuel ñoo dépassé wul affaire suuf frontières yi di wax affaire congrès benn mais ñoom loolu ñoom dépassé nañ ko gisoo Mali lañ commencé après dem Côte d'Ivoire et puis dem euh, dem Burkina Faso bu ñuy dem Côte d'Ivoire dafay attentat wala Burkina Faso dafay attentat laajuñ visa laaj laaj laaj autorisation c'est pourquoi damay wax pour Sénégal dimbali Mali du addiya du parce que dañoo baax pour Sénégal dimbali Mali mooy dimbali boppam parce que bu Mali daanu ñun ñoo ci topp ñu ñoom Mali dañoo jigéeyoo tellement que ñun nekkoon nañ benn dëkk li ñu doon wax la fédération du Mali li ñuy wax euh, Mali boo ko xoolee prolongement naturel continuité naturelle am mooy Sénégal vers la mer comme jihadiste Afrique de l'Ouest la ñuy wax bu ñu jëlee Mali naturellement ils vont vouloir marcher vers la mer et puis bon donc Sénégal Sénégal Sénégal moo ci topp. danay wax tamit bu dee jihadiste attaqué guñ Sénégal ba léegi wala ñëw guñ Sénégal ba léegi ñaari mbir moo am ou Sénégal nekkul ci agenda donc ci seen calendrier waxtu bi jotagul pour ñu ñëw Sénégal. wala peut-être parce que dañoo yaakaar ni contrairement Mali ak Burkina Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni dëkk bu solide la am na état armée police am na organisation xam ne yeneen dëkk africain yeneen dëkk yi amul ñaar yooyu rek moo ko mën a expliquer soit pour ñoom heure bi jotagul soit ñu gis ci Sénégal kat contrairement ak dëkk yeneen Afrique yi ñoom organisé nañ am nañ doole des trucs comme ça mais lu ci manti àla kulli xaalin du menace pour le Mali rek et c'est pourquoi France bu ñoo jàppale Mali affaire politique extérieure la mais pour Sénégal pour Côte d'Ivoire pour Mauritanie dem jàppale Mali du problème extérieur parce que mooy jàppale seen bopp parce que jihadiste ñoom pour ñoom Mali du dara pour ñoom li ñuy wax mooy Afrique de l'Ouest et donc Afrique comme Sénégal ci la bokk nag donc il faut que Sénégal teel jël ay matuwaayam pour xam ni kat bon euh, ñu ngi sant yàlla affaire ñëwagu fi mais mënul ñàkk que bu Mali daanu ñu ñëw ci donc li gën mooy di jàppale yi mu jéem a arrêté jihadiste yi peut-être à Mopti wala Bandiagara wala Sévaré wala feneen parce que bu ñu ko deful ñun ils sont obligés euh, contenir jihad yi jihadistes yi à Kidira wala Bakel donc jéem a arrêté jihad yi jéem a dimbali Mali mu arrêté jihadistes yi Koulikoro wala Koulikoro euh, wala Bandiagara wala Mopti moo gën ñu xaar ba ñëw ci frontière bi ñu koy jéem a et j'ai l'impression man loolu maa ko wax lu mat fukki at mais euh, léegi yaakaar naa nag finalement armée bi ak kilifa yi xaw nañ xaw xaw nañ ci jub ñu ngi gis menace bi parce que boo xoolee état bi ngi def ay camp ay Goudiri am na benn euh, bu tudd Gassiri boo xam ni léegi euh, moom frontière yi lay gérer j'ai l'impression que léegi nit ñi gis nañ la réalité de la menace. Yoro Dia maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf El Hadj Malick. El Hadj Malick Ndiaye. fukki simili ak ñeent fukki ci benn wax suñu ci xibaar ñu na ci nag lu ñu doon session ci wàllu xibaar yi bokk na ci nag mbirum Bofa Bayot ak kii di avocat yu nekk capitaine moom di Clédor Ciré Ly nag kat ko téye ba ko jaaxal déggoon nga ci xibaar yi rotal yi ko ci rotal ki ñoo dal ci ganu kër gi tey ji nekkoon Yoro Dia xam-xamaat loolu jëm ci xibaar bitim réew doon wax nag ci li xew fële ci Mali cong gi nga am lëkkale kook li bàyyi gi ñu bàyyi jihadis yi ak wecc weccu gi ñu ko weccu bàyyi Soumaïla Cissé moom yor jamono nekkoon suñu ganu kër revue de presse bi ak ajante Mbari Ndiaye moo ndar képp xibaar yi Assane Thiour moo nekkoon ci wàllu xarala ci kàddu El Hadji yeneen ñu xibaar ak yeneen jamono jàngeen jëf